xale yi génn nañu njagamaar yi génn nañu ñii ñëpp ay sot waa Pikine dañuy bëgg sot waa Mbour ñoom tamit nee nañ dañuy sot lii début commencement bi la déet bul wax loolu ci micro dañuy boog ne maa koy wax <laughs> sama jabar bu ko seelaan damay am problème baax na kay dem ñaning ñëpp génn nañu ndeysaan moom ngeen fas yéene jàppale ki naan guddi guddi mbuur di représenté drapeau mbuur saa yuy dem di bëri mbuur lay bëreel mbuur lay mooy tax muy jóg nee dama koy damm nii la defoon gannaaw bi mu gagné Rocky Balboa ca Russie ca Suisse Bombardier tey ñëwaat na di def caravane pour avoir le soutien wuy <coughs> soxo <coughs> dama xun mbuur pour le soutien des Bourrois ndeysaan garage baa noonu borom clando yi ña garde corps yi ñu ngi ko encadré di daw ndeysaan bul waxee foofu sam waa ji ndeysaan gaa nañu siège yu damm yi ku waa ñu mën na mel ni Bombardier ngi noonu Bamba. Talla Ndiaye. ci marché bi. léegi nag ñu ngi dugg ci biir dëkk bi ndeysaan Bombardier man dama gis ne instant yi dafa nekk ci combat bi dafa nekk ci combat bi instant yi nee na lépp a yàgg actuellement nañu def lu gaaw balaa muy guddi nee na guddi guddi mbuur dafay delluwaat kër ga dafay lëlu wala dafay delluwaat entraînement ci guddi guddi gi parce que pour bëre Eumeu Sène damay def fa ñetti séance ndeysaan gaa yaa ngi génn ñu ngi génn marché bi fas yéene dugg ci biir dëkk bi ndeysaan ñu ngi woo waa Mbour waa Mbour. fi ci biir quai de pêche bi parce que quai de pêche bi Bombardier bu fay dem yàgg na di fa dem te fa la daan liggéeyee fa daan xëccee mbaal nee naa leen ku wax Bombardier wax ko ak napp boo ne Bombardier da ngay xalaat géej parce que cala daan liggéey day daan daan xëcc mbaal kon day dem foofu fekk fa ay mbokkam ñamu daan liggéeyoon lool. dem saavonte ak ñoom woo leen ci bés bu rëy bii nga xam ne moom la am le 28 juillet incha allahu rabbi son combat royal contre le fils de Pikine Eumeu Sène ndeysaan ñëpp a ñi génn di saavonte ak moom xale yi di daw di ko topp ba ci biir quai de pêche bi maanaam fa ñuy nappee fa gaal yi di teeree fa bato yi di teeree fa la ñu jëm ni njaay génn kenn ak kenn di ko tàllal loxo di naan ko ñu ngi sa ginnaaw doomu mbuur ga ay doomu mbuur lañu ci loo nekk ña nga ca ànd ceeg Leewtoo production ànd ceeg Xbet ànd ceeg l'écran ànd ceeg EDK ci entrée bi mais pour dugg ci quai de pêche bi ci marché bi la ñu nekk gum oto yëpp taxaw nañu waaye seen champion mu dugg ñu saafata ak moom di ko tàllal loxo ndeysaan lii la champion di jariñ boo amee bés wàcc ci mbedd mi wàcc ci tali bi dem ci koñ koñ koñaasi wax ak say supporter wax dëkk bi ñëpp génn xam nga ne lii lii day sooñu mbër lii day may doole mbër. waa Mbour ñu ñëwee la fi ay Pape lu ngeen loo yëgagul loo yëgagul nar nañ lu gàddee lu ngeen bëgg Pape Maguette. nar nañ lu gàddee. Pape Maguette la benn tuuti lii maa jàmm la Pape Maguette. nar nañ lu gàddee. lii maa jàmm la Pape. buur lu lu lu gàddee lu pata. Leewtoo the king. Leewtoo roi des arènes. ci marché bi ba tey ñu ngi moom xale yi kontaan nañu. non Leewtoo nag Leewtoo nag initiative bi yéen ko njëkk a def te làmb def caravane jox mbër bi moyen jël seen effective jël seen groupe ñu def caravane avant le combat di wër di sillonner quartier mbër bi euh, merci beaucoup à Pape Thialis merci beaucoup à Diaw merci beaucoup à tout le groupe le personnel am paas lëbu du xam paas ndel bi paas la paas la ndel bi paas la wuy ma ndel bi paas la ndel bi paas la dama koy yoxot ndel bi paas la ama seen xal moon la benn boy bu naaw léegi xal moon benn boy léegi sa waay ñu jël di wu. lan paas paas yaram bi tàng na le roi yaram bi tàng na oh oh xoolal kii xoolal Saly gars yi kontaan nañu ah laa ilaha illallah xumu na te te xumu na te bés bi ñëwagul Leewtoo mbir mi xumu na te ñëwagul supporters yi kontaan nañu ndeysaan ñu ngi koy tëggal jërëjëf jërëjëf taj taj oh déggal rëng. nee na dama am doole dama koy randi damay dagg baat bi ay Eumeu oh, am na problème Eumeu waa Pikine xool leen ko rek xool leen ko rek the king roi le fils de grand frère u Pape Dia ay ndeysaan ndeysaan yaram bi tàng na mi ngi mel ni kuy demee saat mi ngi mel ni ku jëmee saat tey wala ku bare ba daan ñëw di jubile ee eh, Bombardier bi ma xamoon ak bii bokkule de Bombardier de daa mel ni ki dafa tekkeeku tekkeeku na gars kontaan nañu Bombardier tekkeeku na ndeysaan Guinée yëngu nañu rab yi yëngu na. genn gaal bañ a dem géej. ku ki nekk xam na ni tefes rek xajuñu si xajuñu xajuñu eh, eh, stade Amitié maa ngi leen koy ñaan bépp mool bépp mool bépp marieur bépp baana baana nañu bàyyi li ñu doon def le 28 xam ne seen doom moo xew xewle ñu mobiliser feesal stade bi ba nga xamante ni ku ñëw daam foo nekk waa Mouride feesal. bu ñu jàndee sabar yi sabar rëkk boo sañoon combat bi suba. waaw. nit nit ku pare moo mel noonu. soo pare da nga yàkkam bis bi ñëw. dañoo gis ne ñuy tëgg nga yëngu ah ñuy tëgg nga yëngu. man ku nekk waaw ñi ki may tëggal nii ki may tëggal mooy sama sama batteur depuis ma commencé bëri mbapat ba léegi lu mu tëgg rek xam naa ko euh, du ma sax fecc kat bu mag a mag a mag waaye nag lu mu tëgg rek xam naa ko. dañoo xamante waaw moo tax heure bu yëngoo vraiment damay damay sama yaram day tànk. président président ñu ngi nuyu la bokk si promotion combat bi bokk si contrat yi. ñu koy def pour mobiliser nit ñi xam ni promoteur bi def na devoir am mooy tëgg na événement bu mag combat royal ñaar ñu mësul bëre muy combat bu war a neex ñu nag suñu devoir tey mooy ku nekk sa fief nga dem mobiliser nit ñi sensibiliser leen wax leen ni leen am nañ bés ñoom ñëpp ñu génn. ni ko Pikine di defee ñëw feesal ñun tamit ñu ñëw waa Mbour feesal del stade bi incha allah loolu moo tax ñu def tey ñu gis tey waa ji tey ñëw ba fii euh, ne di feddali diggante yow ak moom kóllëre bi ngeen am nee na ca ba muy dàq métti fii waaw li mu wax dëgg la mën nañ ko dëggal parce que dañu am contentement si moom bu ñëwee fii mais yéen bi ngeen ñëwee fii gis ngeen nit ñi engouement bi ak nit ñuy génnee kon moom fii fu mu mbiin la fu mu xam la parce que moom bi mu nekkee xale géej la jàng muy métier ñu bokk benn koñ mu fay dem géej nekk xale benn gannaaw bu ñuy wax duut batis yor ko fii ba Conakry napp na fa soof fa buum du ko jàpp jën indi ñu tege làmb mbapat biñ ko tegee ñu ngi ko tegee ñetti bitik fii bi ñu ñëwee ñu dem final ñuy béré di béré ba mu dem final mu dem benn final ak benn booy bu dëkkoon yaraax bu ñuy wax njool bu mu ko songee mu dóor ko boot ci biir nit ñi ñu jox ko saako ceeb muy premier saako ceeb bi mu ñëwee ñun ñëpp ñu dajee gars yi ne kii mbër la na bàyyi géej dem bëri ji ñu ñëw grand mbay yàlla ko yore yàlla yaram suñu benn grand mun ne ñu aada seen jarbaat bi na dem bëri ji làmb ji dafa am place te loolu tey dëgg na dëggal na ko ku nekk xam ne ne tey ji mooy roi des arènes bi mu ñëwee fii ñëpp xam nañ ne kii bu taawee ku ko xool xam ne lu ma amul ci Sénégal ci moom la te combat bi waa mbuur gépp la ñuy ñaan ñu mobiliser wu nekk say dem làmb ja ñu jël victoire bi andi ko Mbour. pour toujours Mbour la dëkk te fi lay dellu si. merci beaucoup président ban message ngay ngay lancer supporters yi. waaw supporters yi maa di wax nii fépp fu supporter mën nekk si àdduna du Mbour rek Sénégal yëpp partout dans le monde ñu ñëw si fair sans violence supporter seen mbër man li ma leen sant mooy nañu yëngal si kaw rek li si suuf man maa koy réglé xam naa ni ma koy réglé ñoom nañu yëngal si kaw rek mais yàgg na combat bi deux ans la deux ans la lu des instant bi dara xaar jour si rek incha allah ñu ñëw def comme ni ñu daan def sponsor yi EXBET SMP l'écran ak EDK euh, e ànd ak yow ci caravane ba ci bis combat sponsor yëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm EDK euh, l'écran SNP ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu di sant di leen gërëm parce que ak expert parce que tey promoteur bu si man yenn événement sponsor moo tax kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen wax ni nañu accompagner Pape Thialis ba le 28 incha allah.